Euh, am na nag tiis ndaxte suñ sañoon euh, ñoo ngi sunu liggéey yéen tamit ngi ngi mais euh, dañu teg ab injustice injustice pour la troisième fois si ñaari at ñu couper signal Tout le nag dañu am lu ñuy wax une fois ça passe deux fois ça lasse trois fois ça casse biñ ko ñëkkee def 2021 mars 2021 woote wuñu sitin euh, porté wuñu plainte doon jàpp ne ñooy l'état état de droit neen bàyyi yëf yi continuer suñu liggéey ren événement marqué, bi mu amee février 2023 bi ñu daal di woote sit porter plainte au niveau de la cour suprême ba février ba cour suprême enrôlé wul suñu dossier Madame, joxaguñu benn date ne bis sàngam ñëw leen ngeen plaider dossier bi suñu waxee ñu ah, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique mais le temps judiciaire des gens ordinaires n'est pas le temps médiatique mais le temps judiciaire politique est plus rapide que le temps médiatique lu tax si diggante bii nii bi déposer déposé plainte ak léegi ab politicien tey am na jafe-jafe ak politicien ñu daal di ko teg daan ñu dem appel ñu tegaat ko daan amaat na jafe-jafe ak benn jigéen ñu teg ko daan ba léegi ñuy dem en appel kon si diggante bi am na ay procès te ba léegi ñun suñu procès bi ñu déposé woon ba léegi kenn euh, kiyogu ko planifié gu ko euh, bi yoon nag injustice mënul weesu li li ñu dal semaine bi passé ndaxte événement xew na man mii nekkoon naa si plateau keppaar gi daal di sama analyse en tant que juriste en tant que avocat bi ko defee si saa si ñu daal di couper suñu signal te ba léegi xamuñu kan moo ko couper ak lu tax mu couper ko bi nu laajee Babacar Diagne si saa si dafa ne moom il n'est pas derrière ça que su fekkoon moom la dina woote dina def mise en demeure mais bi yoon du moom. Euh, ñu laccé xol fenen ñu ñom ñëpp ku ci nek comme ni ko Moustapha Diop waxé ku si nekk daanaka patate chaude la euh biñ démé nak ba ci parce que mujj naa laaj DG Canal Plus ne ko lan moo xew ban kan mo la wax dagg sama signal mu né ap lettre ministre de la communication moy euh Bokar Cham wa moko né mu couper suñu signal pour message mensonger et subversif Manam état bi dafa japp ne li ñu doon wax du deug té tamit day yé fitna man nag keppaar gi dafa na émission bi li ma wax ñaar yef la Ben gi euh le droit n'a pas été dit la politique a été dite Lutax mané le droit n'a pas été dit té mirum viol mirum agression sexuelle euh, il faut déjà nga conjonction sexuelle manam jaxaso amna te loolu waxu naw la donc ba amul luy conjonction sexuelle am na loolu le droit n'a pas été dit et la politique a été dite ndaxte gis sorti ministre de la justice bi acquittement amul ci dossier bi en tant que professeur de droit acquit.